SeneInfo International abonné leen ci suñu chaîne YouTube saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju réew mi ak ci réew fii nu teew nag kenn ku ne xam na ni gannaaw ba nga xam ne si Cheikh Modou Mountakha digal na Serigne Amdi Fall ak njabatuk Cheikh Fall gi ñu saytul ko war may dëkk bi jox leen aw yoon wu nu jaar tànnal leen yoon woo xam ne si la ñuy saytoo liggéey boobu ba ñu si tàbbee ak léegi dafa def ab diir sëriñ bi jàpp nag nii day jaadu bu nu demee ab diir mbooleem li nga xam ne saytu nañ ko ñu daje ko ñu daje fii ngir jëbbal ko sëriñ bi su ko defee sëriñ bi joxe si ndigal ñi koy teew lu it mën a xam ni liggéey baa ngi nii mbooleem ku liggéey bi masa a dal sa kawit nga xam ni lii nga xam ne moom la sëriñ bi di tere si dëkk bi ban ko nangoo sa yow wala bañ la ko aayee fii lañ ko indi si kër maam Cheikh Rafal jébbal ko ki fi nekkal Cheikh Rafal moom moo si joxe ndigal si ndigalu du Modou Mountakha ni nu ko gisee nag lu doy waar la waaye nag mu ne su koo ñàkk feeñal ndax dëkk bi am na ñoo xam ne ba nu fi ñëwee dañu fee ñëw ngir pas-pas dañ fee ñëw ngir yaakaar dañ fee ñëw ngir buut ngërëmul sëñ Touba ñooñu kenn waxu leen ndax ñoom waxtu wu ne ñu ngi góorgóorlu si ndigali sëñ Tuubaa waaye nag nu xam ne dëkk bi dafa màgg ba àgg foo xam ne fii ñeneen ñu bëree bëri gane si nañ te ñoom bokku noog ñoom pas-pas ñoo xam ne ak matadi wala boog am lu des si nun moo waral ñuy jëfee lu juuyoo ak li nga xam ne mooy bëgguk sëriñ bi ñooñu nag kenn ku si nekk ba ñu agsee fi yow am na yoon wu nu aw jëflante ko ak yow ñaar la nga yoroon te du méngawul ak li sëriñ bi bëgg ñu jël ko si yow mbaa nga yëkkati ko jox nu nu andi jébbal sëriñ bi waaye laa saa nga nekk si leneen lu wuuteeg loola ñu jëflanteeg yow si anam ba nga xam ne anam boobee la laaj waaye lépp rek si ni ko sëriñ bi bëggee woon mooy si ak dal mooy si ak ak labirante mooy si ak masla ba yàlla dogal tey ji ñu teew fii lii nga xam ne moom lañ leen won mooy li nga xam ne moom la ñu génne si dëkk bi si diggante ba nu ko tàmbalee ak léegi ak leneen loo xam ne neexut a wone ndax loola méngowul ak loo xam ne war nañ koo wane ñëpp di si teg seen bët waaye lu mën a xew ñu xam ne ndigal li njabootu Cheikh Fall gaa ngi si te fas fas yéene wuñ see deltu gannaaw li sëriñ bi bëgg moom faw dana ko am Cheikh Fall nag taxaw na temm ngir li sëñ tubaa bëgg lépp mu am ko kon nuy soññ suñu bopp di soñ ñëpp ñu xam ne bëgguk sëriñ bi mooy lu rafet ak lu baax rek ndax loolu dong lañ warloo ak sëñ Tuubaa gannaaw jaayante gi mu jaayanteeg boromam ak rasulullahi ba sanc dëkk bii muy dëkk bu nuy rawe muy dëkkub texe muy dëkkub lislaam muy dëkk bu ñuy defaroo waaye doonu dëkk boo xamante ni bii des fee war a yàqoo wala nu indi fi lenn loo xam ne day safaanoo ak lii bëggu sëriñ bi ndax sëñ bi lim lim bëgg moom la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bëgg li rasulullahi sallallahu alayhi bëgg mooy bëggu yàlla sunu borom foofu rek nag la sëriñ Amdi Fall fas yéene ànd ak njabootug Seera Fall gi nu taxawul liggéey boobu bii ba mu àgg fa ko sëriñ bi bëggee euh, li ñu fi génn nag gis nañ ko xam naa bari na yoo xam ne mu ne su ko wax li nu mën a wone rek la wone waaye lépp luy xeetu ñaawteef te nga xam ne daje na nag moom ci dëkk bi taxawaay bañ sa war a am am nañ ko ba mat sëkk. ñu ngi jaajëfal mbooloo mi yëpp ci liggéey bu réy bi nga xam ne moom lañ liggéey waaye nag maa ngi jël samay kàddu muy kàddu sama kilifa yi ma taxawal yëpp ak mbooloo mi yëpp di wax ne ñun li ñu fi bàyyi rek mooy liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba bi li ci jiitu mooy sellal ko sellal bi nag ñun la war. naka jekk ci cosaan ba léegi ci maam Cheikh ba léegi eh, ñoo ñoo mus nekk ñagu yoon wi ab ñag nag bu buggee ñag day gën a ñagas li muy ñag ñun nag taxaw nañ temm lépp lu Serigne Touba bëgg daal ci dëkkam bii danañ ko def ci kaw ñu wéy ci ñu wéy ci ndigal topp digle yi ñuy digal yi ñuy digal topp ko ni ko sëriñ bi bëggee fu ñu joxoñ tamit foofa lañuy aw danañ ko def ci dal danañ ko def ci yar danañ ko def ci teggin waaye danañ ko def ci fulla ak fayda bu leen fàtte mukk ne sëriñ Touba moo gën a for dëkk bi te Touba bi jëloon nañ Serigne Touba yóbbu ko te bañ ko yóbboo maam Cheikh Ibrahima ngi fi woon te xat dammul woon fam jaar nag ba xat dammul mu lijjanti yoon wi ba sëriñ bi dellu si sëriñ sëñ Basiru di wax naan gannaaw dogal yàlla gi bu bu Serigne ñibbisee ci réew mi pexey bàyyi Cheikh Ibrahima tax diplomatie boobu mu yoroon ak xarañ boobu mu yoroon ñun ñëpp ay Cheikh Ibra lañ yor nañ ko te mën nañ ko yow nan yar nan nu xam nañ fi ñu war a jaar ngir lijjanti dëkk bi waaye nag nan nu may rek te bàyyi ñu te bàyyi ñu ñu doxal bu ko defee lépp tamit noonu suñu maam doxale woon rek noonu lañ fas yéenee doxale duñ jàdd fenn duñ def lenn lu ñu war te def lépp danañ ko teg ci yar lépp danañ ko teg ci teggin waaye nag lépp danañ ko teg ci fulla ak fayda sama baay li mu wax bu ko ñëpp déggoo buñ ko dégloo xel te bañ ko dégloo xol dana yomb lool dispositif bi Cheikh Ibra ba téye yoon wi di ko doxal di ci goo xam ne ñëpp xam na ni bu rëccoon ay loxoom du mu demee mu dem nag bu bàyyi koog ñun ñu des feeg moom nag la sëñ Touba andi woon nag Cheikh Ibra ñi fi desal sëñ Touba andi koog ñi fi desal Cheikh Ibra possibilité boobu ngeen wax moom la ñu war a jël ci suñuy xol téye ko ci suñu kii mais yëf yi nii ñu ko bëgg a doxale su ñu ko boxee doxee nii dana am sax mais du dox ni war a doxee dama yàlla baal nan fab lépp teg ko ci ak taalibe teg ko ci ab yar teg ko ci ay teggin te wéyee ndigalal Cheikh Ibra buñ ko wéyee rek yëf yi day yomb lool Sëñ jox na Cheikh Ibra ndigal na Cheikh Ibra jëfe ndigal li waaye suñ ko bëggee benn benn wala ñu bëgg def ni bëgg def naa day indi ay jafe-jafe te mbooloo mi ni ñu toll mën na su leen dajale ci benn kayit mbaa wenn lenn baat rek leen mën a yor fi ñu dañ ni si leen rek ñëpp wuy si waaye new nu carte bi kaay leen ko wuy si xam ngeen la leneen leen kaay leen wuy si nag ngeen ñëw dajaloo su leen leen def leen rek danañ def kon ñu bàyyi xel def googu mooy lam njariñ li si toppit mooy ñii nañ leen félicité lii lii murid yee lii murid yee du man du sama morom nanguwuma lam nanguwuma kap nanguwuma dara murid yi ñoo jaayante yàq seen nelaw jaay seen bakkan jaay seen doole jaay seen lépp ngir bëggal sëñ bi li sëñ bëgg maanaam ci dëkk bi boo xamee ne danoo bëgg tëdd nag nag ñun di nelaw ci suñu biir néeg ñu taxaw ci terrain bi génneel ñu loolu ci biti ban man koo teg bët ni di ko wane ñooñu waras na leen a félicité war leen a jox ay fóor yu nu ngi wax ci tubaab lu leer loo xam a mën ñu gën ko mën a gën cee sawar loolu ñu bàyyi xel loolu su ko defee suñu jógee ñoom ñeen jëm ci ñoom ñooy njëkkay respecté ñooña ñi ñii bàyyi faal na leen bàyyi xel te mobilisé wu ñun ñëpp nag buñ ne rek jàpp nañ kii daa def dangam ñu bako ca buñ ko def